الذي في كل بسار وفي سفر masati sayaati bu ay nit jógee fu sori bàyyi seen lépp ñëwal la ci bis bi faaw nga taxaw ni leen jaajëf ak dajjiwaat taalibe yi tegaat leen ci yoon ba nu gën a xam seen diggante ak seen borom waaye ñu xam nu ñuy toppee sëriñ bi loolu moo waral cérémonie bi cérémonie bi nag dañ leen di xamal lu gàtt lay doon ndax dafa am beneen programme boobu nekk ci ginnaaw di ñëw te yéen ñëpp xam ngeen ko muy guddi gi jàng yi fi am am na itam nag beneen télé boo xam ni mi ngi ñëw te jàng yi da koy dem en direct loolu itam ngeen bàyyi ko xel ba tax na bu nu fi jógee ba delluwaat ci kër gi ñu teel a waajaat dellusiwaat fii ci programme bi loolu ñu ngi leen koy lancé pour ngeen bàyyi ko xel bu baax programme bi du gudd ni ñu ko tërale mooy sëñ Marine mii mooy ubbi ci alxuraan su noppee ñu jox sëñ ay dara Saw mii kàddu yu gàtt bu noppee ñu jox sëriñ Amidou jóg mii bu noppee ñu jox sëriñ bi mu soññ taalibe yi ñaanal leen ñu delluwaat ci biir programme wat guddigi khadim kebe ak jankat yi bari seigne khabban ge ci ties ñom ñep ak mbollem jankat yi ñoy fanaane guddigi guddigi nak gi nag itam ci ndigalu sëriñ bi du dañoo wota jang yo xam day dem ba asaman set nako nit ñi xam demeewul non day ño xam dañoo ak sëriñ bi wolere te magal gi nit ñi ni ci kër gi ñen ñi wuñu lolo waral taalibe yoy di jankat yi ñew sakku sëriñ bi pour barkelu ci guddigi kon lu mu guddigi guddigi guddigi ba 1h ba 2h jang yi japp nañ ni fa la yam loolu itam nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon bu leen soññee pour ngeen ñëw ci baas bi bu kenn wax kenn sa morom jëkkante leen ci baas bi ngir programme boobu di ñëw ñu mën leen jël en direct ndax dafay feeñ ci àdduna bi ñëpp xam ko bismillaahi rahmaan صراط الذين أنعمت عليهم صراط على أمين وحي الله وعزائم أمره عين قلوبنا ونوير أبصارنا وقائد أرواحنا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما استقل به الناس الحق سفيع الهدي إلى صراط الله المستقيم سبب لساني نوير جناني سفي الأماني والشبرائي mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadimi Rasoul ñu ngi ñaan ci yàlla mu yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal borom Touba yéene ji mu am ci liggéey Serigne Touba yàlla na yegg te mu ànd koog noonu barke Cheikh ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp. nuyoo bi nu ciy jiital sunu kilifa bu baax gi sëriñ Taala Mbàkke bu ñu ko nuyoo nuyu nañ mbooleem ku sant Mbàkke ku nekk ci jotaay bi ñu ngi koy ndokkeel bu baax di nuyu bu baax sëriñ Mamoor mi nga xam ne yàlla dogal na moom lañ fekk si muy sunu sëriñ di sunu wëllëre di sunu xarit yàlla boole nu at yu baree baree bari te lépp rafet moo waral at mu jot rek fii rek léeg lañuy ñëw ànd koog moom yàlla na doon téeméeri at ci barke Cheikh Ahmadou Bamba ñu nuyu bu baax ki ma boole ak moom ki nga xam ni lii lépp bu amee sama diggante ak Serigne Mamor moom la mu di soxna Naar Mbacke moom Daarul Moxti ñoo koy nuyu ñoo ngi koy ñaanal di ñaan sama borom taxawu ko waaye di beral ak nuyoo Serigne Moustapha Gueye xam sa diine bis bi nag di bis bu mag boo xam ne ku ci yàlla boole war ngaa sant yàlla bu baax ndax suñ borom tabaraka wa taala day buur bu bari yërmande buur boo xam ne yërëm jaamam ñi dong moo tax mu indi leen fi boo demee ci alquranul karim dafa giñ ne la am la anna jahannama min al jinnati wannaasi ajmaina daa ni danaa feesal sawara ci nit ak jinne waaye ngiñul yàlla loolu bi ko yàlla giñee ba pare bëggul doomu aadama yi dem sawara looloo waral mu yebal cent vingt quatre mille prophètes téeméeri junni yonent ak ñeenti junni yonent lan moo fi indi woon yonent yooya mooy yonent yi alayhimu salaam ñoom ñu gindi doomu aadama yi bañ bana dem sawara pour ñu dem aljanna loolu mooy li fi indi woon yonent yi ba yonent yi jàlle itam mouhamadou rasulullah mooy xaatamu nabiina mooy ki nga xamante ne moo mujj ci yonent wi la nabiya baadak ab yonent dootu ñëw ginnaawam bi loolu jàllee xulafa u rasidun yi taxaw yeesal lislaam taxaw sàmm wiraasa ndono wi fi Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam won ndono loolu nak demoon ba yàqu ba ràpp ci dend bi nu nek mudi di déndu Afrique Afrique lu jitu 1895 la tambilé ci 1800 ba egsi ci 95 lu ëppoon ci ñi fi doon woote diine ak l'islam ñii tubaab bi rey nañ leen ñii ceddo yi gàllankoor leen nga xamante ne jëmmu réew mi ñu nekk di Sénégal l'islam doxu fi woon loolu la sëñ Moussa di wax naan l'islam di jooy yikket ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel ni làmbaay li tax mu misaal ko làmbaay mooy booba jàkk amutoon diine amatul samp daara amul woote jëm ca yàlla ndax kenn amatul xasdu li wajihillah baatu xasdu ci arab mooy jublu yàlla amutoon ci senegaal loolu borom Tuubaa ko bindal boppam sëñ tubaa daa wax ne farra liyal islaamu wal kitaab farra liyal kitaabu wal islaamu wa ummatul maahi fala ulaamu nee na li tàmbalee ci ba ci li ko mujj li ko jiitu dañoo dàq alxuraan mu làqatu ci man Ahmadou bàmba ma nangu koo làq ñu dàq lislaam mu làqatu ci man Ahmadou Bamba ma nangu koo làq nga xam ne lislaam amutoon ci dend Afrique kuy woote ngir jëmmi yàlla am fi woon kuy woote ngir alquranul karim am fi woon sëriñ tubaa xaadimu rasool ne may nama dadub lislaam sëf ma jóor leen ma danaa ko jaamu si Ahmadou Bamba lislaam moo waral mu xëye woon mbàkke baari jolof waaye xëy gi mu xëy mbàkke baari jolof doonul ni dafa xëy ngir dem ràmm ay doomam wala ngir dem ràmm aw jegeñaaleem dafa xëy ngir lan xet li l'islam poñe bi nga xamne ne poñe nañ ko ci l'islam l'islam amatul cër ci Sénégal amatul cëfri af cër ci Afrique lool la Serigne Touba demone libéré di l'islam lil mustafa na waytu maa yu jaddidu sunnatuhul xaraa wa inni ahmadu li fi yenen ci bi bàyyi won muraf julli amu fi war amu fi natt asaka amu fi génne murum kor amu fi samp dara amu fi mbollem ñi fi wote won ci l'islam ñep tubaab bi ray leen 1895 l'islam ben candidat la déssé won moy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mami seigne Muntaxa borom 18 safara déssé gogu nga xamné mom la l'islam déssé won ben candidat nak seul moy ki nga xamante ne mooy Sëñ Touba bu seigne Touba démon échec ci geej gi kon l'islam tay Senegal, am Sénégal bu seigne Touba démon échec ci geej gi daray alquranul karim do am Sénégal boo demee bi sëñ Touba tollee jeewal li koy dëggal mooy bi si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tollee jeewal nga xamante ne jeewal sëñ tubaa daa wax sëñ Abdou Karim Touré ne ko Abdoul mu ne ko Mbakke mu ne ko jeewal aw xur la Abdou mu ne ko Mbakke mu ne ko jeewal aw xur la tubaab yaa ngi ci kaw tund wi man maa ngi ci weneen tund wi ñu war a daje ci biir xur wi ne ko Abdou Karim mu ne ko Mbakke mu ne ko bi ma jàkkaarloog ñi ma doon jël si muy tubaab yi seen boppi fetal yi bari na ba mel ne dugub ju foccu ci nawet bu nangu waaye Abdou Karim mu ne ko Mbakke mu ne ko bi ma jàkkaarloog tubaab yi ca laa gis Iblis mu xabar ñu ko juróom ñaareelu asamaan di wax naan lislaam tey benn candidat la dese su ngeen xoolee yéen sama ñoñ ba sëñ tubaab mii am ndam ci l'islam l'islam continué dootu yàqu bi si Amadou Bamba dajeeg tubaab yi jeewal danañ sëñ Abdou Karim Iblis xabar ñu ko juróom-ñaareelu asamaan ànd ak lu ma am di wax naan gaaw leen ñu yàqal si Amadou Bamba ndax tey jii kat bu ñu yàqalee sëñ Touba l'islam yàqu sëñ Touba nee na ma jàkkaarloog Iblis jàkkaarloog tubaab yi borom Touba nee na dama faa bàyyi Iblis bàyyi fa tubaab yi dem ci alxuraan yàlla ne woon na. inna ibadi laysa lakka alayhim sultaanun yow iblis am na ci sama jaam ñi ñoo xam ne mën mënoo ci ñoom dara sëñ Tuubaa nee na iblis ngay xàqtaay di ñëw ànd ak moom ma dem ca alquran jël alif ga jàkkarloog iblis ne ko ayasa minnillahu inda jeewali iblisa isna daytuwoo bi yaawali sëñ Abdou Karim Touré nee na sëñ Tuubaa moo ne ko iblis day arrière mel ne xar muy dañ di arrière mel ne xar muy dañ daw ne mel ci samay tànk man Ahmadou Bamba ma mas ko mu ne ripp ma jël sama tànk teg ci dënn bi mu ne ma Ahmadou Bamba ba yàlla mbindee ak tey tànk bu ma mës a dugg sa bos ci gën a tuuti waaye moo ci gën a diis dimbali ma boo tegee sa tànk ma daw taqali koog yow ñu ànd sëñ Tuubaa ne billahi faaraxtu nasaara jeewali wa xayrihim xattaan bi naa talawuli keroog la Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasool sowe lislaam waaye keroog la Sëriñ Tuubaa nërmeel iblis kon bu borom mu ton ci geej gi da ngay wax ni kon bu sëñ tubaa lu ton iblis timis gi ñu doon julli alquran di señ medun don jang kon tay señ medun du ko timis gi ñu doon julli kenn du ko julli borom tuba nak sowe l'islam ndax kat yan bi señ tuba xëye woon mbàkke baari jolof dem señ Moussa Ka wax yan ban yanoon qurbu ya ak lab te attanuñ ko Bamba ko foofu raw gaaya xam nga te attanuñ ko kon am nañu ko yanu woon waaye mënuñu koo yëkkati ba yóbbu ko te attanuñ ko Bamba ko foofu raw gaaya te sëñ Tuubaa daa wax ne uwahidullah walastu asrak say an bihi ayna siwaayo yusrik borom Tuubaa nee na fa ma taxawoon di kennal yàlla ku fa mas taxaw bokkaale nga yàlla loolu la sëñ Moussa Ka wax naan amul kuy dajeek nasaraan yi juróom-ñaari at yu mat te yàquñu tawxiidam ku dul yow Serigne Touba amoon nañu doj woo xam ne kun jàppu teg ca kaw jinney doj wa daat lay fab ndegam doo borom Touba amoon nañu nag woo xam ne jan loog nit ay ndeyam booyal nañu nag woowee mu far àndeeg borom Touba amoon nañu reyin woo xamante ne rey nañ ca ay kuréel te yow ba nga fa teewee xar nga fay baax ba dem Touba sëñ Touba mooy ki mas a jàkkaarloog noonu yi dellu si te yàllaam yàquwul lam doon jaamu yàlla dëñu sëñ Mandoumbe nag bam mu demee liggéeyal sëñ moor Diarra sëñ Touba dana ko Mandoumbe mu ne ko Mbàkke mu ne ko loolu bareegul am na lu des sëñ Mandoumbe ne ko Mbàkke lu des mu ne ko dama yéene woon ne man Serigne Touba danaa goreel juróom-ñeenti jaam barkeeloo ko ci liggéeyu rasulullah te awma jot gu ma goreele ay jaam ma bëgg nga defal ma sama bëgg-bëgg googu soo ko defee desee la tooma dara sëñ Mandumbe dem Mali dëkk bu ñuy wax xaay di fa liggéey di wut ay gàtt di ko rendi di teg ca taabal ja di ko jaay ngir dajale ba mu amee njëgu juróom-ñeenti jaam jënd ci juróom-ñeenti jaam indil ko borom Touba bi mu ko indilee sëñ Touba ñu nuyoog sëñ Touba sëñ Touba ne leen gore ngeen dem leen jaamu ji yàlla bu leen jaamooti ku dul yàlla geestu sëñ Mandumbe xabbaan ne ko Mandumbe mu ne ko Mbàkke Mandumbe mu ne ko Mbàkke mu ne ko ëllëg yowmal xiyaam waxuma sa doom waxuma sa taalibe waxuma ku la yaakaar waxuma ku la sët waxuma sëb sët waaye ku xam noo tudd rek ëllëg yowmal xiyaam bu defaa tëll du dem sawara aljanaay këram te yow sëñ Mandumbe xaban yaa ko liggéey sëñ Tuubaa nee na xam sëñ Mandumbe mbaa nga bokk ci moom mbaa nga bëgg ko rek lu lay soweere ëllëg yowmal xiyaam sëñ Mandumbe itam mooy ki nga xam ne laxasaay gim doon liggéeyale borom Touba moom sëñ Mandoumbe Xaban tekkiwu ko tekkiwut laxasaay bi ndax keroog bi muy waaj a génn àdduna déendéy 1933 daawoo ñaari taalibeem ne bu ma génnee àdduna laxasaay gi ma doon liggéeyale sëriñ tubaab bu leen ko tekki ndax ëllëg yowmal xiyaam laxasaay gi moo may seere man sëñ Mandoumbe ëllëg yowmal xiyaam waa kër sëriñ Touba bu ñu teewee drapeau ba nga xamante ne mooy symboliser yoonu murit ca yowmal xiyaam man sëriñ mën dumbe xabbaan maa ko yore moo tax ak laxasaayam lañ ko denc wàll ci biir bàmmeelam muy maami sëñ Mamour mi kon jëmm la joo xam ne ku liggéeyal sëñ Tuubaa la sonn la ci sëñ Tuubaa ku jariñu ci borom Tuubaa la waaye am ci sëñ Tuubaa lu ci kenn amul ci jëf ak ci ñàkk sëñ mën dumbe liggéeyal na sëñ Tuubaa liggéeyal na sëñ Mor Jaara liggéeyal na maam na borom daaru waaye liggéeyal na sëriñ Modou Moussa Mbacké bi ñuy tabax jumaay Touba ji bi jalu suuf yi tegee sëñ Mandumbe daa xoor jalu suuf ba ca gën a kawe mu yéeg ca mbooloo mépp xool ko mu yuuxu ba fu baatam joti mbooloo mi daw ñëw mu ne leen jumaay sëñ Bamba ji ca kaw ba fu waay tollu di ko séen mbaa man sëriñ Mandumbe xàbbaan ci biiru suuf ba kenn dootuma séen keroog la murid yi am pas keroog la murid yi góorgóorluwaat nga xamante ne sëñ Modou Moussa Mbacké dane maa ngi giñ ci yàlla sëñ Mandoumbe lu mu defaloon sama baay Xaadimu Rasuul man sëñ Mourou Moussa Mbacké defal na ma ko sëñ Maam Mor bëggam doomu aadama ak fonk kóllëreem tax na at mu jot lu mu xam lu mu xat-xat danaan na ay dara wax bi ma ko defalee émission Walfadjri dafa ma woo jox ma yére boo xam ne moo dàq bii ma jëndal sama bopp teg ci xaalis bu bari te bëree gut ak ma jikko ju rafet jooju moo fi dajale doomu aadama su xëyoon joxutul kenn dara nit ñi ñëw ndax jikko la ko nit ñi toppe waaye du xaalis joxe gi day jikkoom te sëñ Mamor kum xeexal gañe la ndax ku la dàq joxe bu ngeen xeexee mu duma la sëñ Mamor kum xeexal gañe la ndax fit joxe koy joxe fit a koy def te sëñ Mamor am na fit juboo naa ki mbokkam juboon naa ay taalibeem te borom jikko ju rafet la borom jikko ju rafet la jël na ñëpp boole leen nuy benn bàyyi na ñuy ñëw fii lu ëpp bokkuñu ci tarixa murit te jikkoy Serigne Mamor Mbacke moo leen fiin doomu nag bu jikkoom rafetee fu mu nekk nit ña fekk ko fa sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi daa wax ne looy wut fi barab fekkoo fa ku koy wut ku koy wut fekku la fa jógal amu fa sëñ Mamor nag li fi mbooloo mi di wut am na ko looy wut ci barab fekkoo fa ku koy wut ku lay wut fekk ku la fa jógal amu fa sëñ Maam li fi doomu aadama yi ñëw mi ngi fi ñi fi doon ñëw daaw daaw jéeg nga fiy fekkaat bu yokkuwul du wàññi ko loolu jikko ju rafet la yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne ki yàlla gën a bëgg ci nit ñi moo kii jariñ nit ñi sëñ Maam Mor yàlla bëgg na ko dana jariñe ci saayir jariñe ci baatin jariñe ci alalam jariñe ci jikkoom te mën a wax lu rafet mësuma koo toog moom mu toog tiddu nit wax ci lu bon kon yàlla na ko yàlla may fan wu gudd wu ànd ak wér imaamu Junayd daa wax ne ñeent yi ku mu nekk ci yow boo tuuti woon yàlla yëkkati la arbahu turfaul abdu walaw qalla ilmuhu wa amaluhu asaqa attawaado xusnul qulub al ilmu wasaqa attawaado al xusnul qulub imaamu Junayd nee na ku tabe boo tuuti woon yàlla yëkkati la sëñ Mamor tabe la nee ku sa jikko rafet boo tuuti woon yàlla yëkkati la jikkoom rafet imaamu Jureedi nee na ku wàcce sa bopp boo xeebu woon yàlla yëkkati la yi nag dañuy wax ne sa adaw wuur yi nafaani sa maa yi xoccataa booy dund jëriñoo kenn dara boo dee du wàññi kenn dara sëñ Mamor dund ji am na njëriñ yàlla suñu borom may ko fan wu gudd wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu tey jii mooy ajjuma le 23 août 2023 ajjuma 2024 Adjuma, mon vendredi le 9 août 1895 ci la Sëriñ Tuubaa bindoon xasida gii sama téléphone nee na ko bind de ajjuma bi may waajal di dëgmal bisub gaaw ngir liggéey li sama borom benn baat rek la ma wax imshi laa taxsha dara demal te bul ragal benn lor kon waajaloon na ko ne yoon wi yëpp ci ay lor nga koy dund ak i métti nee na xasida gi maa ngi ko bind wala tan sa xawla bandihim inna shaata jumaa هي بعد العشرة إلى غروب الشمس ونص القصيدة أصدقيني ما كل بنا في وقت الجمعة جينا وبيمو جيلة تكوسان بنو نينا تلك جبريل نكو صبرم نينا غواج دينا لبيت تقول بيت دينا تاكوك سي بوك دينا تاكوك سي جبر دينا تاكوك سي تالي سرين بي نينا جلا تامبل خسي دغي حسب الله ونعم الوكيل محمد ما يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبصر سيرن توبا نينا بما خيي سوبا تي غاو با تي لا ген تي كيرغي تي مباكي باري دوجو تي جاكي جولي باي دغ ملا كير جبريل نكو سا بون نينا واخون نالا دين لا بيت duggaat ci kër gi araam na ci yow nee na ci laa wëlbatiku wax ne nañ ma defaral samay bagage tañ indil ma fas wu tudd awnullahi sama borom xamal ne ma bis jii lay tàbbi ci loxol nasaraan si Sëriñ Tuubaa nee na boobee la toog ci jàkka ja daal di kon comme ni mu daan def nee na jàkkaarloog njaboot bi di leen xool ba ci yërmande nee na bu xoolee wet gi ba ñu jeex mu xool wet gi nee na di leen yërëm ak di leen ñeewante ne leen bis ni ki tey damay dem sama borom xamal na ma ni dogal bi wàcc na loolu la sëñ Moussa Ka di wax naan yaa saa ili an sababi tanzimi yow ma xuruji sayxina al xadim min daarihi tudoa bi mbakke bari bi idni xaalixil barayal bari xarajtu yow ma sabti saamin al asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar keroog sëñ Tuubaa la jàkkaarloo ñoom booba fekk na digganteem ak tubaab dañu jaxase ko mm-hmm. waaye indi leen ay ruuxale mm-hmm. ba sëriñ bi yitteem yépp mooy mm-hmm. dindi tuuma leetar bi mu njëkk bind dafa bind ci bu fekkee da ngay bind leetar ci lislaam di ko bind ko bokkalul bis pas-pas ko bokkalul diine amoo droit ne ko assalaamu alayka wa rahmatullah waaye dafa wax ne ko assalaamu ala mani tabaa huda jàmm day ci pànkuk sëriñ bi jàmm de ñeel na koo xam ne ni aw na ci yoonu njub loolu mooy yow tubaab bi juboo Serigne Touba nee na leetar boobee la bindoon jox ko maam Cerno Birahim ne ko demal nga yóbbul ma ko Ndar la daloon yonent bi ci maas loolu dafa dal yéen Serigne tubaa ci Mbacké Bari Serigne Touba dafa woote ne damaa bëgg a décentraliser l'islam ana kan laay yebal yaman Seydina Alioune jug Omar ibnul Xattaab jug Seydina Ousmane jug ku jug mën na la ay jinis laa tax sa la laa tax yow na nga dem na nga toog mu ne ku juum mu ne mu ne Idriss toogal nga toog mu ne du yow yaay kiy dem yaman wala stafil yaman du yow mii lay yaay kiy dem yaman nee na muy lim ba ki nga xam ne ni tey tàbbi na ci moom muy mahaas ba mu jóg mu ne ko mahaas yow mii yaay dem yaman sëñ tubaab bi muy yónnee ci tubaab bi mag ñi ku ne da ngaa jóg taxaw sëñ bi ne la toogal lu yow yaay dem ndaar bi maam Cerno Birahim ñëwee da ko ne Cerno yow mii yaay dem ndaar maam ne ko kon ma dem soppi sama mbubb yi mu ne ko nii ngay demee boobu tubaab su 14 heures jotee day def li ñuy wax sieste kenn du dugg ci biir bureau beneen bi ci des mooy soo koy jox leetar danga koy teg ci kaw palaat ndax boobu tubaab du joxanteeg noir mais à mais sëriñ bi bind leetar bi jox Cerno Birahim ne ko soo demee jox ko tubaab xamal ko ne ko sama borom rek lay jëm waxtu wu ma joxee digal bu dee suba du ma yendu su dee guddi du ma fanaan maam Cerno nee na bi may egsi Ndar tombeeg waxtu sieste nee na may xëccoog ñoom ci bunt bi nee na ñu ne ko doo yegg ci gouverneur bi gouverneur taxawee ci fenêtre yi gis ko daf ne kii kan la ñu ne ko mooy rek ci Ahmadou Bamba mu ne logiquement mën naa nekk nee na ci la ma recevoir ma ñëw ñu ne lettre bi dañ koy teg ci palaat nee na mu ne du ko teg ci plate daf ma wax mais amee loxoog loxo nee na mu ñëw jox ko lettre bi tubaab bi ne ko samat bi su ñëwul danañ ko jëli ginnaaw bi lañ wax ne booba la cernoree ñu ne ko looree mu ne ne kiy wax ne dañ koy jëli kooku du ku ñuy waaye mooy dikkal maam Thierno génn fa. war fas bu gaaw. tubaab bi keroog la ñëw bëgg mu bëggeewul. la waral ay fasam. ngir bañ a yegg ci sëriñ bi. boobu 300 espèces moom la ñu décrété. wax ne bu ñu demee. bu ñëwul nañ ko faat. bu fekkee ne ñëwul rek nañ ko faat. nit ñi xamuñu ne soo demee ci Cheikh Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales. waxuñ ñu ne nañ ko jëli dañoo wax ne su ñëwul nañ faat bakkanam. moo waral ñu déporté mboolem doole yi ñu am. ngir mën koo jël ah, ah am na gouverneur bu ñu wax Moutet moom Moutet dañ ko jëlee France spéciale pour mu ñëw pour suiser sëriñ bi dañ koo jëlee pour mu ñëw itam pour bu sëriñ bi deful li ñu bëgg ñoom ñu daal di raaf mboolem fu sant bi ne nee na bi ñu ñëwee di ko jël si tombe nag sëriñ bi am déggalu sans borom sëñ Fallou nu ko nettali nee na fii la toog di wax ak ñun Mhm. di nu wax la muy nar di wax la muy nar nee na ba yeggal daan nuy ñaanal jub war sa fas wa nee ñu di ko xool maag sëñ Mourou Soie muy dox ba gisatuñu suñ mag bu baax ja nee na sëñ Touba daal di réer ci biir tund yi mhm. sëñ Touba jeewal la soo demee jeewal mhm. ñu bari dañuy wax tund jeewal jeewal ñaari tund la ak xur tubaab bi daa taxaw ci tund wee Cheikh Ahmadou Bamba taxaw ci tund wii bi ko tubaab bi séenantee nee na mi ngi gis seen arme bi focc sëñ Touba nee na man maa wàcc ci biir xur dal di lal sama si jaada daal di kabar nee ñu ne ah sëriñ bi kat dafa mel ni joxe na bopam kon nekkul ko xamne ku ñuy dóor balla ci lañu wàcc ñëw sëñ Tuubaa nee na la jël sama ndëggul tànk yi tek ko ci ndondul saytaane ne dootul am doole ci man moom billahi faraqtu nasara jeewal wa khayrihi qatan bila tanawul keroog li sëñ Tuubaa tàmbali xasida ak inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun te saytaane da waxon yàlla ne ko khala fa bi abdatika la ugniyannahum ajmaina ma ngi wàcc sa màgg gii ne dinaa benloo sa jaam ñii ba fexe ba dugal leen sawara suñu borom ne ko déedéet inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanun ci la sëñ Tuubaa tàmbali xasid ak ayasa minillahu ànd ak jeewali iblisa idna daytuhu biyaawal yi xasida googu la sëñ Tuubaa tàmbali jeewal ñu daal di ànd ak sëriñ bi ak seen fas yi keroog la sëñ Tuubaa njëkk a wane karaama nee na keroog laa leen njëkk a woon ahlu ndax bi ñu ñëwee beeg si foofu dañ ko ne tubaab bi nee na dangay fanaani ndar lu mu gudd guddi mu ne yàlla sama borom mi may nee na man Ahmadou fii laay fanaan nee na keroog ba nu jàppante ci ko sama borom bu ahlu badar sëñ Tuubaa nee na keroog laa garante lislaam fa bassir dawil islaami bi aajilan wa kun muniiran bi yel islaama anta muniir am na ay abiyaat yoo xam ne ci asiiru ñoom ak xasiid ak asiiru sëñ Tuubaa nee na booba laa jógee jeewal waaye nee na bi ma gestoo li gën a doy waar mooy kudul Omar ñaan ak ñaari mag ñi nga xam ne ñoo ma yaruloon samay bagage nee na gisuma ci nit ku ñuul koo xam ne mën na maa wax ak moom sëñ tubaa nee na ci fanaan si kokki guy ba mu ñëwee kokki bi ñu yegsee waa dëkk bi di ko teeru daf leen a wax ne wëgg leen fasi tubaab bi ndax seen fas yi sonn na foofee sëñ Touba jugee ànd ak sab noonu ay seeni fas mar nga ne jox leen leen ñu naan ndax seen fas yi sonn nee na booba xooluma ñoom seen jëm yi waaye fas yi ñu yor ay boromi mbakkan lañ te xam naa ne mar nañu moo tax mu wax leen ni wëgg leen fasi tubaab bi ndax sonn nañ keroog la sëñ Touba déqee kokki dem Louga bi mu ñëwee Louga foofee la jëlee gaal jéeri daal jéeri su ngeen ko déggee moy terrain boo fa la jëlee terrain dem ndar bi mu ñëwee ndar def na fa lu mu gatt gàtt 28 jours yo xamné ndax calculer leen le 10 août 1895 bala 4 septembre 1895 ci lañ ko yóbbu sar des décès foofee lañ ko bolé woon ak gaynde mu taxaw né fustu bi ak si sama laa taxi silhatuhu wala yalaanal asadu dañ bàyyi xel ne seigne Tuubaa da waxone lu ngeureumul yalla di joxé lola regaluma ci détail regaluma ci demal ak fekkeel لوجين ما تك دينا كتكو واي ناجوت نعلم ليالا فكل ما فيه رضا الله جرا فلا تخف فيه ملامة الورا لولا خم نعلم ليالا ده تاني نعين لير لير يالا نه لولا رجل ما تكو ما تخص أكو ما تغني كارو بلس إن توبا جوجي سار ديرسة بودي متى أي فلا ولا نكو دف فوفيلا توب دان بند أي كسي دام بيو ين نك بام بي تلا تامبل نك كسي دقي متو ده أسيرو مع الأبراري حين أسيرو وظن لعدا أني هناك أسيرو بابي لا يخسر يا خلق والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المدي خسير سما نجبوت جيما جوتونو نوسي صاح توباب بي فخنا با تساري لين ديسيتوما دار بايوما دار سما غيناو تي كو خامني ياغي يعني دون تامبلي فوندوما دارا ياغي يعني دون تخاول سا مبولو لول لا سيغ موسى كنان دو دور نداو دو ميرلو ماك منول غان تلي دكم امول خارما يالا نيت دو خاص نيت تي وا كرم كو ملني كو ام ليك موم نالين وورنا يا كو تور سيغ توبا ديمنا 7 ans 7 mois ak jour jëluñu benn arme buñ mën a wax ni lii la sëriñ bi yóbbaale woon bi muy dem tubaab bi nee na saatu lañ gisoon mu yor ko saatu ci ci la daan ñawee ci la daan sote xalimaam yi muy bindee ndax daa waxoon ne su ma demee la may féete wooy wooy tagg sama sang bi sayyidna Muhammad alayhi salaatu wasalaam salaatu sitta bi matxi sitta taatihi ba tamaati saa yi barki démb laay liir ci irwa na nadim ndakate am na benn bis ci maa yoon baax dañ koo dugal ci néeg boo xam ne da taw ñuy seelu taw bi fekk ko fa moom mi ngi taxaw ci ruq bi nee na téere yi maa ngi ko gàddu nee na seen tux mi ak seen naan yi dugg na ci sama yaram wi ba xeeñ xunn sëñ Modou Lamine ne ko jërëjëf wax melo bamba mu jukkeñ waa jalaaway ngën ji yónneen ba yónneen bal ko xam boromam sëriñ ma kañ ko daway ko ndaxte mu dolli may may jaman sëñ naa wala luy kañ boromam wallahi wallahi man na tili boromam gaañi melaw bàmbaay nit ñi waaju xamul na dégloo te roy roy lu jikkoom yaa moo xam borom Sëriñ Tuubaa nee musum mu summi dal yi ci laa dugg nee gi ma jam day dafa jam basar sar ci kaw nee na keroog su ma bëggee sujjóot deret ji may tax day tuuru ci suuf ndax yërmande ji ma ëmbal jàmm ñi nee na foofu laa njëkk a gisee soxna Mariama bu sa mu ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko bul gestu ginnaaw mukk na nga dëgmal li nga nekk te na nga fexe ba na nga ci réussir na nga xam ne maa ngi ci sa kanam maa ngi ci sa ginnaaw te sama borom boo ñibbisee kuy tee nga yilif ko du taxaw ci dëkk réew mi sëñ Touba nee na sama xol boobee la daal xam ne li ma bëgg sama borom dina ma ko defal sëñ Touba moo tax yi xasidaam yoo gis foo gis muy wax ut ummatal Moustapha rek génnewu ci kenn benn bu jullit foo gis muy wax waltar xamil xalqa loola njanaaw yi naaw sax ci la nekk mm-hmm. nee na ci la nekk am na xasida gu muy bind goo xam ne mi ngi ko tuddee ala inna nii usni ala xayri munhimi ak ala inna nii arju xasida yooyu bi mu koy bind nee na boo xoolee tànk sëriñ bi doo gis der bi ndax fel yii sam ci tànk bi di ko jam waaye sëñ Tuubaa nag ginnaaw coono yooyu ak métit yooyu mu togg yëpp bi mu ko jeexee le daf ne yéen lenn rek laa leen sant mooy ngeen ñëw sant le ma yàlla ñu ne ko ci lan lay sant la yàlla mu ne coono yi ma yàlla teg dama bëgg woon ko ne ko man dama koy sant léegi laa koy wax ci télévision bi màggalu Tuubaa yàlla mooy parrain d'honneur bi oh. sëñ Touba dane màggal Touba yàlla mooy sama parrain à vie da ngay gis nit def bis wax ne diw laa ko parrainé diw andi ay millions joxe wóolu bi ci ko boolee xaalisam ak i nitam waaye bis bu ñu tuddee yàlla nag kon bis bi nii rek la mën a toll te bis bi yàlla la wax kaay leen sant leen ma yàlla sama borom ci loo koy sant mu ne nattu yi ma teg de man ab jaamam laa te bég naa ci loolu moom la ma waxoon rek ne maa ngi dama ndalu lislaam sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jaam te yàlla kat dafa dëkk jullit ci na leen li ma leen defal yéen mosu leen maa sant alam naj'al lahu aynayni wa lisaanan wa shafatayni wa hadaynaahu najdayni waaye nag wa xalilun min ibaadiya shakuur ñu néew ci yéen yéen a may sant te moo ne nit day bu wànnee ne képp am jafe-jafe àddina su amee baaraam buy metti mu am jafe-jafe àddina waaye nit buy sant day fàtte yàlla waaye boo xoolee la in shakartum la azidannakum waaye wala in kafartum da ca topp na moo jata jàngat nu sant yàlla toll noonu la weddi yàlla toll te yàlla daa bëgg jàmm ba koy sant moo tax mun nañu néew ci yéen nag ñoom ñoo may sant soo xoolee alxuraan day wax sax ni walakin ak saran naa si goo gis mooy c'est dommage ni ma bëggoon nit ñi mel ni nit ñi meluñu walakin ak saran naa si laa yaskuruun laa yaquluun ah yooyu yëpp laa yaalamuun yooyu yëpp lu muy tekki mooy ni ma bëgg nit ñi mel ni nit ñi melul ni sëñ ñibbi si Ndakaaru le 11 novembre 1902 action boobu li tax mu neex ma mooy laataa sëriñ bee wàcce ci bato bi daa wax ne nañ ma wol seexanta tubaab bi nee na ma ñetti ñetti escalier yi tubaab bu la yóbbu juróom-ñaari at ak i weer ñibbisi ci sam réew nga yónni ko mu ngir mu wol la sa taalibe di sa rakk kooku bu la yaboon du doo ko yónni nee na seexanta nee na tubaab bi ñetti ñetti escalier yi ne uwee seexanta maam seexanta 2 mètres 02 la daan mesure sëñ gaawaan nee na ma takk sama diggi jël ay saako ak ay paakaam yu ma ko mën a yeesale ay weyam nee na yéeg ci kaw wax yéeg ci kaw bata bi nee na sàmbur bi mu nekk sikk gi muy xeeñ a xaman ni sàmbur bii ci la sëñ Tuubaa nekk mhm. nee na ci raaraam dugg mhm. nee na mu wàcc fii dafa jiboon mhm. sëriñ bi daa amul jib nee na bi mu ñëwee dafa wàcce kaala bi dal di jël loxoom teg ci mbaggam ne ko seex sikki jàkkaarloo naa mu siggi xool ko ci ay bët mu ne ko cheikh mu ne ko mbàkki mu ne ko waat naa wàcc naa naa ku ma yaakaar cheikh mu ne ko mbàkki mu ne ko dij naa leen dab loo xam ne ba yombal xiyam du mu ne ko mbàkki mu ne ko fu ma jaar siggil naa leen jaawul ma fenn moo tax keroog bi ko mujjee gis ren la téeméeri at ca ba ñu noppee gis sëriñ bi ci saa ak léegi ci weeru ma xaram ren la téeméeri at keroog bu Cheikh Moustapha Al Karim ñëwee njaareen di dugg ci kër gi di laajte ñu ne ko sëriñ bi gën nañoo dégg mu yëngu man Cerno Birahim bi ñu ko ko waxee daa wax ne yàgg ngeen maa tooñ waaye tooñ ngeen ma tey ndax lii mu def ba ngeen yóbbu ko njaareen def na ko miraaraan mhm. waaye su ma yëgloo rek mu del si waat mhm. waaye nag yéen a ko woo ci nite fekk si leen ci nit yi loolu la maam Thierno Birahim wax sa sëriñ ne sëñ Modou Sa nee na bi ma dugg see ci nit nee na tànkam yi laa fa kasaro nee na ma gis ko mu nekk juróom bi tëdd nee na bind xasida xaati mën a war a jaati teg nee na ma xam ne sama borom ñëw naa ko dogalam sëñ Modou Sa nee na jooju ma ne damaa jug tiim ko ne ko yaay gor yaay jàmbaar yaay liggéey yàlla yaa réussir l'islam nee na dama ko tiim tagg ko kañ ko door a toog ci suuf wala seen rabil al macha yaa waari sal Moustapha muxtaara fii xulaxin وفي يقين وفي علم أبا الحسن أكرم به من إمام مهتد عالم ملجا العباد ومن جاهم من الفتن سيدي مرسى جيلك جاهل أنك توبا كانوا بسن توبا واتي النكا دفن الكاروان دم جور دكي كلا توبا بجابل سوفيا جي دم يندل أي جفة جفة كنا واجالا وين نيون وين كمان الإكزيلي لون مو يوب سيرين لغانا كلا نيو سانوسي gis nga bu ñu ñëwee sànnoo si weeru yàlla la ko wax sëñ sëñ sëñ sëñ siréloo nee na bi sëriñ bi yegsee ci ci péncum sàmm si nee na ñoo ñu fekko ko fi ne ko am na ku lay seet waaye ci aw fas la war ànd nag mbooloo te lim sol lépp daa weex tàll sëñ siréloo nee na mu sànni la doon bind daw ñëw ci kanamu sëriñ bi nee na sëriñ bi daal di muñ ne ko siréloo mu ne ko mbàcc mu ne ko ana foo may dalal sëñ siréloo nee na booba sàmm si gépp maa ci gën a ñaawub néeg nee na néegum ñax laa amoon nee na ñu naan nañ ko dalal fee mu ne sama borom fii dama xaram ci siréloo mii la ma wax da ci lay daal sëñ Siré ma ne la ma xool sëriñ bi amul lu ma ko mën a tere ma ne ko damaa bëgg a sëgg nga teg sa tànk ci sama mbagg wàcc sëriñ bi ne ko danoo baaxoowul toroxal doomu aadama sëriñ mu ne ko mbàkk mu ne ko nañu wutal wàccukaay foofee la weer la wooree weeru koor foofee la Cheikh Mouhamadou Bachir soxna Fatima di maam andi ko mu siyaare Serigne Touba fa la def ñaar fukki fan ya ak juróom-ñeent keroog bi woori keroog jàllee ci la Serigne Touba dugg si nag fi nga xam ne mooy Darou Salaam ñëw fekk maam Cheikh Anta waaye xoolal foofu tamit geste noble bi mu def bi ñëwee bu jub daaru salaam daa wax ne dem leen neel Seex Anta magam ju baax yi ñëw te bëgguma koo bett maam Seex Anta woddu garab yi daaru salaam yi ak perkaal di bërëngu nag ci lay bi ngir gàttalu Sëriñ Tuubaa waajoo jii nga xam ne tey jii moom la ñuy ko ci bis bii muy 18 safar mooy Sëriñ tubaab mi nga xam ne nun amul lu dul moom léegi laa koy nettali ci tali bi ab murit du am complexe ab murit du am xel ñaar ab murit benn gëm-gëm rek lay am ak benn xalaat mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sëñ tubaa nee na li ma leen mënal bu leen ko seen ndey ak seen baay mënalul kon du ngeen fi ñëw te duma leen gis waaye dama leen a mënal lool seen ndey mënalu leen ko seen baay mënalu leen ko daa xëy soo woo sëñ Malick Ndiaye ne ko dugal njaaram gépp wal ma taalibe yi sëñ Malick Ndiaye ñëw ba kër sëñ mbay Sarr sëñ Babacar Sarr ne ko Malick looy dox mu ne ko ku baax kee ma yónni mu ne ko ku yàlla yónni doo dox ci suuf yëkkati gileem jox ko ne ko yéegal ca kaw te yëgle yéene bi bi mu ñëw ci sëñ mën jaw faxam sëñ mën jaw xam moom mujj a ñëw ci sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko mën jaw mu ne ko mbakke mu ne ko sant leen yàlla mu ne ko mbàkke taaliba yëpp ànd nañ dela sant suñu nangoo jaamu yàlla nangoo góorgóorlu ci lu baax ginnaaw yàlla mbàkke sa jëm jée tax ndax yaa nu tax nu xam suñu borom yaa tax nuy góorgóorlu ci lu baax sëñ Tuubaa moom yi tey jii moo woote bis bii suba ba léegi nit ñaa ngi bernde bernde nag ñaar la

yàlla laay sant kaay leen sant la ma yàlla catholique yi jullit yi tijaan yi murid yi xaadir yi ak laayeen yi ñëppay ànd ñëw sant le ko yàlla sama borom te ñu ci église yi sax yàlla lañuy sant de waaye dañ faa bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ñoom yàlla la ñuy wut sëñ Tuubaa moo wote bis bii wax ne bis bi bu ñëwatee képp koo xam ne sa mbég sama mbég la dama bëgg ngeen sant le ma yàlla léegi bi ñuy añ ndawal la ñu tegal indi ay fur yu teg moom mi ko liggéey dafa araamaloon boppam ci loolu daa xëy woo kenn ci njabootam ne ko dee leen ma defaral bisaab di ma ko indi nee na benn bi soxna si ñam bisaab bi mu wex mu ne xaaral ma tàbbal ci tuuti suukar ndax mu xaw a neex bi mu ñëwee bi mu ko guuxee da ko guusu ñu laaj ko mu ne sama bakkan dama ko not ci lu neex yaa yaa sayid yi yaa xaalixal anaami amit xawaaya sëñ Tuubaa nee na xasanu muy neex sax yow yàlla nang ma ko teggil bëggumaa yëg ban neex bu dul yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam ngir nga seral xolam mooy nga toog ci wetam di wax loolu amul ci àddina yaa sayyidi yaa xaaliqal anaami am mit xawaaya xalilan manaami nee na damaa bëgg bu ma xasaloo sax loolu di nuru bànneex nag ma ko teggil yow sama borom moo tax bu ko weñ tongee du ko fëgg bu ko mbóot tongee du fëgg bu ko ay fel tongee itam du fëgg day bàyyi boo waxee mën a ñoom ay borom ñu bakkan lañ te dañoo am wàll ci sunu jëmm yii kooku mooy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul jumaay Tuubaa ji sëñ Fallou daa génn la 7 juin mille huit mille neuf cent soixante trois jàkkaarloog jumaa ji xool ko ne ko Mbàkke fii lañ toll tey tollale la buñ ko rombee rek rombale la yéene nañ jumaa ji dem ba mel ni jamaa loolu la sëñ Fallu wax moo tax yoor yoor gi mu toogee gàddu koor yi ram di ko siyaare sëñ Fallu day xool ba yàgg mu daalu jënd daan ne bañ koy jël si nii la woon tey biñ koy sant nii la moo tax sëriñ bi ne suuf si man rek maa fi sañ a taxaw yëkkati samay loxo sant yàlla te kenn du ma laaj lu tax sukkurul ilaahi xaana fii turaabi banda jamili sabri في اقترابي ولا حاولت شكر الله في اقترابي بعد جميل سبي في اقترابي waaye sëñ Mbaye Jaxate da ko ne yow yaa dàq suukar ku la lem doo la yàbbi doo ma yàbbi sëriñ bi ne ko lema dàq ci li sax suukar te maa dàq lem bentu wa tubtu wa xasaltu xasla fa li xalaawatan tafuqul asla ba yàgg sax mu ne yàlla ñaari isib la am ñaari groupe mooy ñiy sant ak ñiy perte yàlla ñiy sant la ma booleel ñiy gañe gañaa yi la ma booleel adhaba rabbi li tawaayal xaashirin وخاد لي كوني سرور ساكنين القران الا ان حسب الله هم المفلحون حسب الشيطان هم الخاسرون من نيوم ني نيو ني غاني نيوم لو سان بوروم بولين يالا نيو يالا فايل سيرن توبا يالا نيو يالا ساخال سي موريد يالا نيو يالا ديف اي دك دك جوي تلي سيرن بي بك تي نيوم موي رك نو باخ yàlla nu yàlla defal nu fekk ko ak yu baree bare bare te ak mu ñuy ñëw mu dàq meneen at mi at muñ la wax ne kii ñu koy defal ren la cent ans mu nekku fi wax naa ko bërki démb nee naa leen nañu nañu évaluer am na sax ay gars yu ñu tudde ay sunni yu ma gis ñu ci tontu waaye loola wax je wax nañ ko ba noppi te la sëñ a waxoon ne du ci yàq dara ne wax naa ko ba noppi te ci yàq dara waaye wax nañ ko ba noppi te du yàq dara suñ demoon ba yowmal xiyaam sëriñ bi noonu sama mbir ak yéen àddina la yam sëñ Tuubaa sax wàccoon naa ndax ci àddina teral na nu ba noppi logiquement fii nu nekk rek waruñ fi woon a nekk niñ toll waruñ ñu wan a toll nii xéewal yi mel waruñ ñu wan a ko wan a am mm-hmm. waaye sëñ Tuubaa moo nu anticipé sunu jamono mm-hmm. ba kenn ku ci nekk di dund tawfeex mm-hmm. bi ci desit mooy daa am génn góor gu baax sëñ ji laa mi moom ma ko nettali woon góor gi daf ne sëñ Tuubaa di ko tëggal combat stade bi fees bi ñuy dar waaye du am adversaire ndax at biir du suble ndax kuy jàkkaarloo moom ci nii muy doxe nee na da ko dul gis moo tax nañu wax jërëjëfe sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te jërëjëfe sëriñ Tuubaa jooju sëñ Moodu Karaam moo ma wax ni mm-hmm. bokk na ci liy seral yaramu nit mm-hmm. kon sëñ Mamoor jërëjëf mm-hmm. noo ngi lay sant di la gërëm ndax lii nu am tey ci bis bii ñëpp ñëw wax naa ne ko fii ci suba bi ñuy ndékki fii nga lal ba mu fees ñam yi fees ci ku tàmbale ci juróomi kaas ak ñaari cafetière dem ba yàgg ñu wut tarmuus ba tey jii ñu lal lal boo xam ne fees na del nga toog nee ca ruq ba wax ne sama yitte dëgg mooy gan ñi bu ñu ñëwee kenn ku ci nekk mën a nekk ci jàmm nga dellu waxaat ni lii sama yéen mooy baas bii ma gis dafa mel lu tàng ci gan ñi bu ma sañoon mu sedd guy ba ñoom duñ am benn jafe-jafe yow de la sëñ Tuubaa waxoon maa leen woo ci sant yàlla waaye maa leen dàq sant yàlla yow danga noo woo ci sëriñ bi dàq noo sant la yàlla ndax loo am du ko fekk koo xam du ko fekkee mbub mii ma sol mm-hmm. ak mu nekk bala maa fii mm-hmm. dana ma ne lii mooy sa mbub ma te bu demee di ko jënd mm-hmm. day xool moom bi muy jënd jëndal ma ko du ma ko yëg du ko tim su demee ñaw lu ko ñaw bu méngoog jamono ñëw ne ma sa mbub maa ngi lii na ko sol kon Mbacke yàlla nañ fi yàgg te wér démb bi ñuy siyaaree xalifaam sëriñ bi moo ma wax ne ma loo ma ko santal rek doyul keroog démb ñaari million la yëngati dem siyaare yi xalifaam kon li muy def duy caagee ni ay jàmbur yàlla rek la koy defal waaye da ko njëkk ci ay bokkam magam a ngi nii toog ci wetam muy sëñ mortaalam ñu ngi lay sant bu baax Mbacke ndax taxawaay bii nga am ci wetu sëriñ bi ba mu tàmbalee liggéey bii ba léegi waxtu wu mu toogee ci sa loxo càmmoñ yaa ngi ci wetu nday yoram te lu mu wax nga ne ma sëñ Mamour amul lu dul moom te képp ku ko jàpp ñun duñ mën lu dul bëgg la yàlla yàlla yàggale fi te lay sëñ Ibra wax ko loolu mooy li am xam nga danañ gis nit muy dox ñu yaakaar na ciy pexe la ne ay pexe wóorul nekk ci njub moo baax te ak njub soo ci nekkee ñetti at te gaa ñu demul dégg naa démb maam Cheikh Anta Samb di ko wax ci ay pexe moom ñetti at rek biñ ko tàmbalee biñ la xamee ak biñ la bàyyee bu ma tee ñetti at rek ca la yem waaye yow bañ la xamee ba léegi ci jëfal yàlla nga nekk ak jëfal yonent ci ak jëfal Sëñ Tuubaa te ci loolu nga mën a nekk yoon wii nga nekk di njabootu sëñ Madoumbe ku ci nekk ameel na la cantul boppam doonte sa bopp sax nga koy defal waaye jël sëñ Madoumbe mu tasaare addina wër képp ba ñëpp xam ko loolu grâce yow mii la yaa ko defal sëñ Madoumbe yaa tax ñu wane ko te kat nag matawal yi noonu ko xam na nii mu sa juyoo ak sëñ nekk dinaa ko dem rek ci day dem di joxe turu sëriñ si di leen bind ngir bëgg jël seen addee di ko jox seen Tuubaa ngir ba ñu wane ne ñoom joxuñu te itam wax naa la ko soxna si toog di soxna Viviane bërki dem bu ñuy ne bisam bii mm-hmm. ay mbàkke mbàkke nga fa woon mm-hmm. waaye lu tax ñu sepp sëñ Maam Mor rek mm-hmm. mu mel moom rek a ne ci jataay ma loolu jëf a koy def ak jikko ñu rafet te keroog wax wax jataay boobu sax boobu la la sama borom defal yàlla la sama borom dëgëral yàlla la sama borom la yàlla la sama borom may la nga yeggale ndax ñun dem nañ ba toll ci matatuñu ci yow seede te it damay dégg sëñ Saliou Samb naan uh-huh. koo dégg ñu naan matuma ci moom seede uh-huh. kooku du nit ku baax ki nga jaxasool rek moom nga war a mat ci moom seede te li ngay def uh-huh. ñun xam nañu ko comme xam nañu ko nag ñu ñoo ko a wax te buñ ko waxee ku ab xolam leer day sant xam ni moom kat lii man bu ma ko mënoon maa koy defal saa bopp te yow ci loolu rek nga ne mooy bëgg lu baax bëgg teranga bëgg nit ñi nekk ci jàmm bëgg itam nag ak nite ndax lépp loo ma am sooy jaxasoo moom te amoon nite loolu sëñ Mamour bokk ca tey taxawaay bii nga am daayira bii nga am murid yaa ngi ci biir tijaan yaa ngi ci biir ñëpp ngi ci biir tal ma ko waral sa jikko ñu rafet rek tax te sëñ Tuubaa dane képp kuñ ne damaa bokk ak moom lam baax la rek laa bokk ak moom te yow sa lépp a baax mbàkk sa rafet na sa taxawaay rafet na sa yitte rafet na léegi sama xarit bi sëñ bokkum dane ma sëñ Mamour kan mooy waajur ma ci ma ne ko sëriñ Abibu moom sëñ Mudu a Xabaan te bari na ci moroom ndax foo génne ci àddina bari waa na ngay dox dama ko koy nettali ci jamono Covid bi ay nit ñu koy seet ba fekk ko ci baamu toog ci ab sarde ñu naan ko sëñ Mamboor lañ soxla këram dégg naa soriwul fii mu ne leen tax da ngeen koo xam ñu ne ko déedéet xamuñu ko de waaye daal xam naa ne buñ ko gisee suñ aajo fay mu ne ah bu ma noppaloo mën naa leen yóbbu nee na bi ma jiitoo di dox kenn kaa ngi naan kii boo demee xamul sëñ Mamboor waaye tey jii bis bu góorgóorloo ba yóbbu ñu ñu koy sëñ Mamboor ñu nag moom fii danañ ñu àtte ca moom mi leen war a yóbbu mooy sëñ Maam Mor nee na bi ma ñëwee ubbi kër gi biñ ma nuyoo naan sëñ bi Mbàkke Mbàkke ñoom sëñ yaay sëñ Maam Mor loolu nag mooy teraanga mooy teral nit te xamoo ko te it kaay mu jox la loolu amul ci àddina ñëw nit ba sa kër ngir loo yëkkati jox ko loolu kenn xamul mel ci àddina yenn saa yi nit tawat mu jëflanteeg moom ci suuf yëkkati addiye jox ko dem ba hôpital faj ko te nit ñu duñ ko li ñuy wax ci télé yii mu li ci suufa ko fuuf te du ko wax du ko wax mukk te du ko leeral ci àddina ndax day wax ne boo tollee ci jëf di nga toll foo xam ne soo waxee nit mën na ne mën maa ci gënoon a jekk loolaa tax jëf ji mu koy defe noonu tey jëf ji ci ak rafetal rek ci la koy teg yàlla yàlla sa borom sàmm la ñaanal la ñaanal suñu bopp te boo gisee ñuy wax lii benn bis nga am woote woo cant woote woo màggal woote woo lenn benn bis rek nga am muy bisu Serigne Touba bii nee nga ma ku may fay bor bii nga may fay bor loolu moo waral bu waxtu jotee nga ñëw toog ànd ak mbokk yi sant leen yàlla berndeel leen ba ku ñëw ren bu déwénee mu bëgg a ñëw maa ngi ñaan ku ne ci baas ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu téwér yàlla may ko mu mottali ab liggéeyam tey loolu am solo la nit dañ koy ñaanal bu la defaree da nga koy ñaanal ne ko yàlla yàlla may la nga mottali sa liggéey sëñ Talla jërëjëf noo ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant bu baax sëriñ Cheikh ci taxawaayam bu rafet ak sëriñ Modou Mbacke mat na ci seede des ma dajeeg mu ne sëñ Mame moom laa dajee ci mbedd mi waaye bi mu ma nuyoo de dama ko doon gestu ndax jaawalewul ci li ma jox te du ko xam sax sëñ Modou mii da koy wax ne ko bay boo ko ne di toog sa ndax boo ko nuyoo saw sant sax mën na ko fàtte yenn saa yi nit nuyu ko mu ko na nga def di maslaa te fekk fàtte na turoo ndax moom du jàpp ne lii laa defal doomu aadama kon jërëjëf Mbacke moo ngi ñaan yàlla nu fekk ko at yu bëri bëri wii muy bëgg a wax maa ngi ciy ñaan ci barke sëñ Touba képp koo xam ne fekkee nga jotaay bii loo fi indi woon ci njàqare sama borom ngoo fi indi woon ci aajo sama borom faj ko yastir jamia alladi arju wa atlubuhu hatta akuna xarira ayn yaslaana yàlla na ko suñu borom defal barke sëñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yi fi teew yëpp di leen ziyaare di leen dox seen wàccuwaay tey baalu ñëpp àq tey baalu ñëpp àq di ñaan yàlla jàmm sax ci réew mi sëñ Talla ñu ngi lay nuyu di la ziyaara baax lay seet yow bu la nuyoo rek nuyu nañ sang yi fi teew la ñuy jaare di nuyu sunu kilifa yi fi teew di nuyu sunu mbokkum taalibe yi ñu bokkal jotaay bi ci bis bu tedd bu sell bii nga xam ne la cant la la ci Serigne Touba rafet na sëñ Mohamed jërëjëf sëñ Saalum jërëjëf kàddu bi rafet na yàlla yàlla fay yiw jàng yi neex na jëwriñ jërëjëf sëñ Moustapha xam sa diine am lu safay njariñ du nëbbu njariñ du nëbbu koo dégg mënoo la yor naa njariñ rek jafe bàyyil mu ne ab la baa buyu waaye yorul njariñ njariñ ku ko yor da ngay dem jàkkaarloog jaami yàlla yi jariñ leen waaye jariñ fexe nga ba rafetal ko yàlla nga am jàmm sunu diggante ak sëñ Maam Mor li sëñ Amady wax rek moo dëgg li nga ci liggéey ak li nga ci def nit doon ko fi def ci àddina ku ci ne ci ñun dafa yor njaboot yor fi ay baay ak yaay yu dëkk Touba ñun ci yoon bi lañ juddoo yor fi sëriñ ku ne xam ne jaratu mbax waa cër gëj fa am kër Cheikh Béthio waaye bu ñuy def bu sëñ Maam Mor xewlee ñu bàyyi lépp ñu wuy si ko di ko daata baas bii day bàyyi ko fa mu jógee climatiseurs yi sedd ak haut-parleurs yi micro yi bàyyi nañ ko fa mu jógee xeeti ndawal yeeg xeeti doom yeeg xeeti naan yi bàyyi nañ ko fa mu jógee waaye dañu fii jikko ji yiw la jikko ju baax la jikko ju rafet la doomu aadama bu ne nag la ngay gën a sa ndaw la booy sa bëdoogu si sëñ Mamour nit ku baax la sëñ Amadou laan na ci sëriñ bi sëñ Mohamed laan na ci sëriñ bi du ma ñëw ci sëriñ bi man ci yow laay ñëw li waral may ñëw ci yow sëñ Tuubaa dafa am wax ju ma sox ci njaarim mbooloo ma dañu mën a daje ku ne de wax ci kéemaan yi ñu naan ko ba nga demee ci géej gi ko sa diggante tubaab bi ñu naan ko sa mbindam mbii sa lii sa laa ku ne di wax mun a ah, tubaab kàll la wax gi day baax na loolu waaye day maa ngi sàkku ci yéen nii ngeen di waxee samay kéemaan ngeen góorgóorlu defaru ba fexe doon samay kéemaan yow sëñ Mamour da ngaa fexe ba doon defarub sëñ Tuubaa ba ko xam ne Axmadu defar na la waaw dangaa fexe doon defarul suñ Bamba ba ku la xool xam ne samaam defar na defar na la luy defaree mbokk ci njaboot waaye defar na la nii defaree taalibe ci kër sa taxawaay ci yoon bi rafet na sa jëf ci yoon bi rafet na sa jikko ci yoon bi rafet na waaye sa doxin ci biir kër sëriñ mën ba xabbaan rafet na la ma koy waxee ci télé bi 2STV rek saa su ne laa koy waxaati fii kër gu ne day am ambassadeur kër gu ne day am ku yor flambeau bi ci drapeau bi ci kaw loolu dogal yàlla bo demee kër Cheikh Saliou mbak Serigne Saliou lim yor ci taalibe bi du jeex way Cheikh Béthio yor flambeau loolu la yàlla do ku ne Serigne Saliou saxal dem ci Cheikh Béthio way yow kër sëñ mënu nga xamane yàlla dogal nga fek fa ku la mak ak ko mak fek fek la fa dogal ci yow la dal moy drapeau bi ya ko yor salal fekewuko sa jot fekewuko sa doole fekewuko sa xam-xam fekkewu ko sa yéene fekkewu ko lu metti ngay daj ngir sa turu sëriñ bi sa turu maam ji tasaaroo ci àddina da ngay dem ba boo ñu organiser les plateaux ngir ñu war koo def da nga ci def loo xam ne seen xam si mii buy ñëw di indi xéwal yi da ngay xam ne kii wax dëgg yàlla yéen rek a tax buy def lii waaye kenn sasu ko ko di nga fexe ba kuy ñëw ci plateau ba nga ñëwal ko mbubb di nga fexe ba plateau ba ku fa toog buy ñibbi nga dox ko essence boo xam ne dépense bu ñetti weer lay doon ndax lan sa maam nga lay waxtaane sëriñ ma nga xabaar liggéeyal nga sa maam de kër gii nga juddoo yaroo fi màggee fi loo fi am du chance mérite la tu la travaillé durement te ñun xam nañ ci dara ndax nag ñooy waxkat yi ñoo ne ci rajo yi wax ñoo ne ci mbedd yi wax ñoo ne ci tant yi wax ñoo ne ci télévision yi di wax da ngaa sonn ci sa kër maam ji da nga cee daj lu métti ba tey sa turu maam bi doo la turu représenté ci réew mi ndax tasaare nga ko ci télé ba ñëpp jot ci. au niveau national ak international kon sëriñ bi li ñu lay ñaanal mooy gudd fan ak wér di ñëw nag ci li nga xam ne mooy dogal saa su ne gannaaw bëgg géeg yaakaar geeg cofeel gi may raam di daw di ñëw muy butéel bi ah man damay wax li ma xam nga man damay wax li ma gëm man damay wax li ma gëm damay wax it li ma tax a jug Cheikh Béthio ku mu yar war ngaa xam ne loo gàtt gàtt gàtt xam-xam xam ne ab ragal mënta nekk ci yow Cheikh Béthio na junni nit toog na benn nit toog na ñaar nit toog li mu bëgg wax da koy wax te moonu yar nag ñaan nag moom ñaar fukki at bu dóog jëndaat la dama ne sëñ Moustapha sëñ Touba sa maam la loolu dëgg la màggal gi neex na ber nay mate na ko loolu du dañ waaye dama ne man Omaro moom Cheikh Béthio moom Serigne Saliou li tax saa boo wootee may def ay coono yu metti di buuxante ci embouteillage yi di daw ay kilomètres di ñëw butéel bi la ba lay sa sàlleegul de déedéet ndax ci koor gi rek la am jëndal branchement wu ndax moom ay bitéelam foor na foor goo xam ne du bitéel yoo xam ne da ngay ñëw di sangu leen ni dem maar da nga ñëw sanguwaat déedéet c'est des branchements longue durée ay visa la waaw sëñ Mamor barke Serigne Saliou Mbacke baatinam ak ñaanam ay visa la. da ngay ñëw mu roof la 6 mois nga dem bu juróom benn weer yi joxe nga ñëw mu roof la 1 visa yi dem na ba 10 ans barke sëriñ Bamba ku ci ne na ko gëmee rek ak na nga sabab loo ak taxawaay ba nga am ci moom rek la lay jox ñi mérité woo bind mu bind jox leen ñi mérité woo naan mu jox leen ñu naan ñi mérité woo sangat mu jox leen sangat am na ñoo xam ne duñ ñëw fa toog nañu toog mu téye kurus ba balee dàq ndax sëriñ Bamba ko liggéeyal maamam surlu Fatiha fallaxi ak naasi loo ci ñaanati yi ak sa waajur ma def ko sëñ Tuubaa ko sëñ Manoumbe kon nag tey yow boo mënee toog fu ne ci àddina say taalibe yi gëm am soxla di la woo di la ko wax ngay faj seen soxla yàlla maa ngi lay ñaanal sëriñ bi mu barkeel yàlla yàlla yokk xam-xam bi yokk barke bi yokk mucc bi koo mën a dimbali dimbali ko balay sa koo mën a dimbali te dimbali woo ko bu dee yaa ko rey dama ne koo mën dimbali te dimbali ko bu dee yaa ko li la yàlla dénk mu nekk ci dënn bii tey baatin bu wóor bu leer nañ ñun ay yéefar lañu ñu te nit ñu siw ñi sañaam siw ànd ak gëm loo gisul déedéet dama ne siw am tur boo demee Angleterre ñu ne Omaro ngi ne nga dem Amérique ñu ne Omaro ngi ne nga dem France ñu ne Omaro ngi ne Kolda Fatick Diourbel foo taxaw ñu ne Omaro ngi ne ànd ak gëm dara siw dafa ànd ak doon naafeq dafa ànd ak doon nit koo xam ne loo gëm dañ koy teg sa moo tax dama la li li nga ma defal ba saa su ne ma bàyyi ñëpp ñëw ceew boo ko deful woon doo ma gis ay wax day leer laa Ibra Samb da koo def tax may bàyyi ñëpp di ñëw ci te bu ma ñëwee ci yow feeg yeewoo ma doole boo su ma soxlaa ñëpp nekk ndax da nga koo jëf ma gis boo ko jëful woon ma gis doo ma gis ay wax day leer ndax lu ma fi war a mën a indi naa ko fa guddi waaye da nga maa war ma gis balay sa dimbali jaami yàlla yi dimbali jaami yàlla yi ci wàllu ñaan yàlla dimbali jàmm yàlla yi ci wàllu baatin dimbali jàmm yàlla yi ci wàllu course fu waay mën a fàkkee ñëw ci yow xamal ne situation réew mi moo ko laaj ndakaaru métti na dëkk bi métti na senegal metti na fépp métti carrément général dimbali jàmm yàlla yi ci li la yàlla dénk muy baatin bii ngay wuyoo sa course bi ak sa cëru maam ji dimbali koo mën a dimbali ba lay sax yàlla na fi yàlla bàyyi nga yàgg fi tëwér yaa rabbana duur ma بالدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم طاير وصب لك كون مد الخادم رسول الله صفي ظواهر مع دمائري بحرمة طيبي إبراهيم أتم علي بشرى وتكريما بجاه فاتمة أكرم لسان وكل ما يجرنا ما ليس مجال لامسي وبرقيته وزين مسلي ومن سلمت مع لقوتك ولما قال خادم رسول الله أطرنا والإجابة na ñëpp jóg taxaw ca kaw nu magal ma ngi Cheikh Mandou Mbe Xabaan Baye Cheikh Habibou Laye borom Bass Fall Cheikh Mandou Mbe Cheikh Mandou Mbe Cheikh Mandou Mbe Cheikh Mandou Mbe Cheikh Mandou Mbe

makum Serigne Touba cosaan ci wàllu maam fa baraxaan moom pir la nda ngeen wusayaan way Mbàkke mala xaji naay Cheikh ma lumee xaabaan Cheikh ma lumee xaabaan xam nga ca dënday boobu yaa bari ndox moo tojee bari xandeer Cheikh Habibou Sambaay ma borom Masfal sama Cheikh Habibou rep ruugu rep ruugu rep da ngay génn Bass Fall fekk yaa ngi Bass Fall sa ruur du doon Cheikh Habibou amul morom sa baay dama koo xam lool mu xam ma lool Cheikh Habibou lay borom Bass Fall ruugu rep ruugu rep Cheikh Habibou la newoon ca sa baay ba Cheikh mën na la Cheikh yaa ko ne sa bàllay sa la newoon ca sa baay Cheikh Mandoumbé Mbacké Cheikh Abibou Mbacké sama waaje yaa ko dese ruug rep da ngay génn Baas fekk yaa ngi Baas sa groupe droit ba lay sama cangay Cheikh Mandoumbé xabaan Cheikh Mandoumbé xabaan Cheikh Bamba leeba la dajeel ngir ñoo yemanu cofeel Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Mandoumbé xabaan Cheikh Abibou samaam na ñëpp def ni nu màggal Cheikh ba Ndoumbe Mbacke xambaat moo baax Cheikh Bamba lee baa la dajeel ngir ñoo yebanu tafeel Cheikh Bamba xaroon na leen am dina gi aljana asaabul ka feeña gi naan seen xaj ba foofa lay fanaan te benn xaj du dem gi naan ci mboolem xaj yaa dinaa yi Cheikh ba Ndoumbe Mbacke yi Cheikh ba Ndoumbe Mbacke yi xam nga ca dende boo dee bari ndox moo bari xandeer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 watawaasaw bi sabr bu ñu santee yàlla julli ci ab yonentam ngi leen di nuyu fépp fu doomu aadama nekk ñi ngi jotal suñu nuyoo muy nuyoo bi gën a tedd muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu santee yàlla nag jaajëfal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul kooku nga xam ni bu ñuy wax càppaa coli Sëriñ Tuubaa mooy càppaa coli képp ku ñu jiiñ ni la yow yaay càppaa coli rek dañoo jiiñ Cheikh Ahmadou Bamba rek mooy càppaa coli kooku mooy gor kooku moo dëgër fit kooku moo gëm yàlla sëriñ Touba moomu di sëriñ Touba ummatul islaamiya sëriñ Touba du pour murid de ndax li koy firndeel jëlal sëriñ Touba li mu bind ci ay xasida teg na le jëlal jaamu yàlla gi teg na le andil ngor gi ak fit bi rek nga méngale ko fii ci àdduna kan ngay méngaleel Sëriñ Tuubaa tey Nelson Mandela ñi ngi koy màggal ci Afrique ndax lan dafa bañan ngir der bu ñuul li Sëriñ Tuubaa def la ca gën a tuuti Nelson Mandela def Sëriñ Tuubaa dafa nekk benn symbole waxuma Sénégal waaye Afrique bu fekkee ni tey jii xam nañ seen bopp Afrique bis bii du Sénégal rek moo koy màggal bis bii àdduna bépp moo koy màggal Afrique gépp moo koy màggal ndax lan tubaab bi sëriñ Amidou wax na ko est-ce que xam nga ni tubaab bi sëriñ tubaa mooy daj dëkk dëpp ni tubaab bi deltu ginnaawam ci sëriñ tubaab la deltoo ginnaaw ci Sëñ Tuubaa la tubaab bi gëmee ni ndeke africain am na ñoo xamante ni man ngaa dal ci seen kaw fexeel leen waaye du sotti ci tubaab bi ne ci Sëriñ Tuubaa la tubaab bi gëmee ni ndekete woo nit ku ñuul yàlla wàcce na ci ñoo xam ni ñu gëm seen bopp la te ñoo xam ni sunu borom rek leen jël teg ko ci seen diggante ku mën a doon ci tubaab bi la ci Sëriñ Tuubaa la tubaab bi gëmee ni ndekete woo demoon na ba jàpp ne jekku na Afrique demoon na ba jàpp ne jekku na senegal waaye ci Sëñ Tuubaa la tubaab bi xamee ni ndeke jekkuwul Sénégal ndax boo xoolee lim doon installé installé woon na ko ba jàpp ni am na réussite cent pour cent moom tubaab képp kuy dem ziyaare ji Muhammadu Rasulullah si ñu am mi xam na ci dara da nga daan dem def demande autorisation ñu yóbbu ko ci tubaab bi ñu saytu ko ba bindal la benn lettre caché ko wan ni man ngaa dem siyaare ji yonent bi alayhi jamonoy tubaab bi koo fi digg mu génn senegal gi dem tubaab bee ko may autorisation mu génn waaye nag ci Serigne Touba la Serigne Touba dajjee loolu biñ ko songee ba dellusi bi mu dellusee ginnaaw ñu bëri xamuñu ni ginnaaw bu sëñ bi jógee ci géej gi ci la tubaab bi may autorisation bépp kilifa diine mu dem aji te du ñaan autorisation te loolu Serigne Touba ci la ko tubaab bi euh, bi mu ko dellusee ci la loolu dooree am kon Serigne Touba moomu ku xam li mu daj bis bu ne ma wax ko chaque jour ma ni leen wallahi billahi Serigne Touba bis bii. nga xam ni mooy bisu màggal ku xam li sëñ bi daj ba tey jii ñu koy màggal bu jotee di nga miraasu bu jotee lépp loo am walla nga xam ko walla nga man ko danga nga buub loolu ànd ak moom màggalal Serigne Touba li mu wax ni santale leen ma yàlla ci bis bii di ko def ndax Serigne Touba bis bi dafa am lu ci ëmb lu am doole téye ko ci loxoom di ko joxe te murit bi dëggal. kennal bisam bi rek la koy jox man xam naa ci dara suñu am mi wax na ko léegi koo xam ni ci benn karaaf café la commencé wa koo xam mat laa la daan àbb koo xam ne amul woon sax fu dal da ko daan àbb ba pare àbb fi nga dal ba pare dem àbbi mat laa wut ñu la baleel nga ànd ak ñuy bale di faxas teg sa mat laa gan bu ñëw nga bokk ak moom rokk booba ba muy dellu man bu ma la waxee ni bis bii secret la boo xam ni képp ku ko xam doo def dara sa poos ñëw ci bis bii yóbbaale ko ndax sëñ bi li ko yàlla fay lépp ci bis bii la ko fay li ko yàlla jox lépp mu ngi ci loxob sëñ Tuubaa mu téye ko ci bis bii la koy joxe man dem na ba teraanga ju ma yàllay jox ci àdduna bi su màggalu Tuubaa la ma koy jox ci weer bi bu dee oto ci laa koy deeroo bu dee kër ci laa koy dayal bu dee xaalis bu bari bu may yéem ci weeru màggalu Tuubaa laa koy laa koy laa koy jot sama dund yëpp lépp loo gis ci àdduna ma am ko génnul weeru màggalu Tuubaa ci laa gëmee xam ni Sëriñ Tuubaa mii ñuy liggéeyal ci weeram wi ku ko liggéey tamit dëgg ci yow dina la fay kon nag ñu ngi balu àq ñëpp di baal àq ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp mën nañoo bañ a jaaraat ci tur yi ndax suñu am lim na ko ba pare waaye nag dañuy ñëw tuuti rek ci fii ñu nekk muy senegal tañ bokk daaw ci heure bii lan laa leen waxal soo bu leen neexee ñu génne ko télévision yi génne ko moo leen waxal ni leen ñi bokkub teen ñooy laxasoo ay goy ma ne gëmuma ni Macky Sall mii bañ na Ousmane Sonko gëmuma ni Ousmane Sonko mii bañ na Macky te nee naa leen woon xuloo boo gis ci toog waxtaan lay mujj ndax tooguñu waxtaan réew mi ñun ñoo ko moom bu këppoo ñun la këppul bu dawee ñun la dawal nañ wàññi wax ji te ki fi yàlla teg ñu xam ni yàlla moo ko fi teg ñu may ko tuuti mu liggéey mais man li ma gis xaw ma ko réew mi li ma gis ñu di ko doxale xaw ma ko réew mi daal léegi ay kuréel la kaañ ànd daaneel ko te mu jaral leen lu ne loolu nag bu ko réew mi gëstuwul dellu ci ginnaaw mën naa indi jafe-jafe réew mi maa ngi ci gis lu sori loo xam ni duma ko wax ndax xam lépp wax lépp dafa koy def waaye man ba may xam ni Ousmane Sonko nii mooy toog ci réew mi walla ka fiy toog ci biddewu Ousmane Sonko la fi toog du tey si ñaam nii toog na sama kër ma ne ko mën de juróom-ñaari yoon fàtt naa ko di xool réew mi waaye biddewu Ousmane sonk rek laa gis te biddewu boobu ma gis mu ne ma ko kuy kuy falu moom moo lay fal Omar ma lay wax naa ko kon li yàllay dogal dogal na ko ba pare ndax tey jii jomaay mi toog du Ousmane Sonko ko fal Ousmane Sonko moo ko fal nee naa leen war ni réew mi ñoo ko bokk ku ñëw nañ ko jàppale fu mu yem ñu indiwaat keneen ñu continuer loolu mooy doxalum réew ñu bàyyi xastante bi waxante lu ñaaw li tëkkoonte bi defante lu ñaaw nañ ko nañ nañ ci deltu ginnaaw loolu du doxalum réew am réew li koy doxal mooy xol yu bennoo bu ñëpp nekkul benn tamit ku nekk toog ci sa rukk kiñ doyloo jox ko ñu bàyyi ko mo liggéey bu ñu yeggee ci war koo folli bu ñu doyee ñu ba ko fa bu ñu doyul ñu jël ko teg lële ñoom ñii yor réew mi tamit da leen biir ni leen nit ñi bëggee ba jox leen réew mi noonu lañ mën a xëyee bañ leen ba nangu réew mi ci ñoom jox ko keneen ndax dafa am ñeneen ñu yoroon réew mi ñu nangu ko ci seeni loxo jox leen bu ëllëgee tamit noonu lañ koy jële ci seeni loxo jox keneen nañ dawal yërmande te moytu fayantoo amul njariñ nañ dawal yërmande te moytu fayantoo amul njariñ réew mi li koy doxal mooy bennoo rek opposition nag mun te ñàkk waaye nag nañ def ci opposition boo xam ni luy defar ñu wax luy yàq ñu xool ci ner mu buñ koy waxee ngir mu defaru ñu defee ko noonu te ba ñu xuloo ba ñu ŋaayoo lii laa am loo xam ni mën naa ko wax nag réew mi kat kenn ëppale wu ma ci ñoom ñee ko yor tey buñ dem seddoo réew mi bu ma leen ci ëppale wu duñ ma ci ëppale kon nag bu buñ dajee ci ndaje yu mel nii bi bisu xaadimu rasul sañ ñoo wax ci sëñ bi waaye nag sañ nañoo wax ci réew mi kon suñu wax du ci gudd foofu rek lañ ci yam di sant mbooleem ñi fi daje rek damay bañ a lim juum suñu ci jukkee Serigne Talla di sama mag di sama xarit di nit ku ma jige gis nga ko fii mu toog jóg génn dugg génn sax defu te sëñ am dafa wax lu am solo gis nga nit sot domp sax ci sot la ko gis nit kenn du ko xeebal bisam bis bi ñoo ko bokk waaye gis sama baas bii may toog sama mag yi toog ci sama wet luy bëggal sama xol la képp koo xam ne tamit gisuma la fi dinaa xalaat ni am na lu la téye waaye du ma gën a kon suñ taala mi bu defee lii dama koy sant gërëm ko ñaanal ko ñaanal sëñ Muudu Mare moom it gis nga di ñaanal sëñ Cheikh sëñ muudu Habib sëñ jiitee ngi nii sëñ jiitee ngi nii jéey ma nga ne la toog Cheikh ma nga ne ma wàcc ci seen soxna yu rafet yi xam naa li ngeen gis ci baas bi moo tax ñu sañsee nii gis nga leen ku nekk takkal la nag soxna Rama moom daa fàtte rafet yi kër ga waaye doon na ko takk ñoom samay xarit la ñoom dañ maa bëgg lool ba amuñu sago ci moom yal yàlla guddal seen fan gis nga yaasin ak la leneen yu rafet yi moom it euh, yal na yàlla guddal fanam soxna Kumba ngi ne moom daanaka lu jot ci kër gi rek moo ko jagal ànd ci jigéen ñu baax ñii di daayira bi soxna Mama Lam ak soxna Kolle soxna Umu madame Mbacke ñoom ñëpp soxna Kiné soxna umu xayri umu si ak magam ndey penda ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jotaay bi maa ngi leen di sant di leen gërëm sant nag buñ ci jaaree ba pare ñu bëgg a ci tur yëpp day metti si nga am nii oma payam gëléem gu rëy te at mu jot mu watti te teraanga yooyu jëm si jëmale ko sama jëmm ji si am yàlla yàlla guddal sa fan yow fi ma féete rek doy na sëkk soxlawul woon sax ngay jël sa alal di dem di ko indi mu jëm si ci man sa taxawaay ci man rek doy na sëkk rawatina nag màggal bu jot nga wat ay gëléem indi ko ci kër gi jébbal ma ko ndax bisu Serigne Touba bi Serigne Touba gis na ko yàlla na la fay Moustapha xam sa mi ni ci suñu am rek wax moo ci nekk daanaka lim na taxawaayam ci kër gi sëñ maaraakan mii nga xam ne am na cër cër boo xamante ni ci biir kër Serigne Touba la bokk di Cheikh bàyyi këram bàyyi njabootam bàyyi taalibeem ñëw toog ci sama wet moom yàlla laa koy kalaabe kalaabe ko borom bis bi nga xam ne jubóo naa ak borom bi ba mu wax mu ni waaw ma lay sant di la gërëm di ñaanal di yàlla guddal sa fan te wéral la suñ boobum ak ñi nga àndal ñoom ñëpp gis naa leen maa ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla na yàlla guddal seen fan ay dara sëñ Mamor Atiix moom daanaka jëru sax ma di ko sant ndax xam naa lan la doon ci man moom yàllaa def mu bëggal ma boppam muy sama doom moom yal na yàlla guddal fanam rek laay wax yal na ko yàlla taxawu ay dara ñu ngi leen di sant ndax waxtaan yi ci télé bi neex na lool Mouhamed Sow ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen jotaay bi dafa yàgg Madul Alxuraan ñu ngi lay sant barkeb alxuraan yàlla na sotti ci yow Omar yow kenn mun laa fay yal na yàlla yokk la taxawaay wéral la guddal sa fan xam nañ cofeel gi yal na yàlla wàccee ay xéewalam sotti ko ci mboolem ku tegu fii sa tànk ci biir Touba ak ku am yéene te yegg si woo sëñ Ablaye Lam dama ko doon mujje rek moom day mag ci biir murid yi nga xam ne di walaf naan naa tudd xale yi doo ko tudd mag yal na yàlla guddal sa fan dëgëral la danaa lebal yoonu murit loo xam ne kenn mënu la ko fay ba ngay wax ci yoonu murit booba wax jafe la ba ngay nekk RTS benn télé doo nga am benn rajo doo nga am réseaux sociaux amul dara amul ngay téye micro RTS boobu di tudd Touba di ci wax lu rafet ba tey ñëpp di tudd Touba ba nga koy def boobu jafe woon yow yoonu murit wépp ñoo la amal njukkal yal na yàlla guddal sa fan te la waa bayti yi ñu ngi leen di sant ñoom toujours maa sax dama leen di wax man du ma leen sant ndax li ko taxal mooy ñun dañoo bokk tool bu ñuy bay te tool bi setagul te du set ba ilaa yow mi diine abadan muy toolu xaadimu rasul maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant soxna maam Koumba mais nga xam ni TFM la nekk di fa liggéey diiru màggal gi mu bàyyi ay yitteem nekk fii indaale tele bi muy jël li xew ci kër gi yal na yàlla guddal sa fan te wéral la yàlla nañ ko fekkee ay déwén yu baree baree bare la ñu waajaat nag delsi ndax bii di ñëw bii nii topp ci bii moom bu saf sàpp lay nekk ci xaadimu rasul boobu nag dañ koy def direct ñu bari di ko seetaan na ngeen waaj sañse ba rafet yor dara ci seen poos di joxe yéen jigéen ñi def leen dara ci paset yi ndax bis bii bi bisu xaadimu rasul la bi su bëgg la Cheikh Béthio daana wax ni maanaam sant day nuru wanewu sant bu nuroowul wanewu rek du cant kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal euh, soxna Zeyna di soxna Cheikh Aljuma Ba ñu ngi koy sant moom it taxawaayam rafet na boobu ba léegi ñu ci kër gi ànd ak soxna Fatou madame ñu nekk di liggéey boobu ba léegi moom it ñu ngi koy sant di ko ñaanal soxna Kati nag moom dama koy beral ak cantam moom it mën naa ni mooy président day bi yàlla dogal fekk ko fi boobu ba léegi mu ngi woote léeg-léegi mu ne baa dara manqué wul man ko soxna si dalalal sa xel dara manqué wul waaye baa nit ñi lekk nañ ana kumba ma ne ko kumba ma nga ca waañ wa daw na bay bëgg a dee mu ree ba taqaal bi léegi mu ni ma maa ngi fi mais sama xel mépp a ngi foofu baa amuleen benn jafe-jafe ma ne ko noonu amuñu jafe-jafe courant amuñu jafe-jafe ndox lépp taw fee xëy loolu nag nit ku la bëgg rek moo ko man yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko te yokk ay teraanga waa qolu salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tàllal tàllal tàllal leen sëriñ bi may sant sëñ Modou Kara di sama taalibe di ko ma bëgg ak mbokkam yi yu baax yii nga xam ne ñëpp samay soppe lañ muy sécurité di sant média bi di leen sant ndax waxuma seen liggéey bi ñuy def mais cofeel gi ñu am ci man rek dafa jéggi dayoo sëñ Modou Kara ñu ngi lay sant ak mbooleem koo àndal teew ci bis bi ñu ngi nii taxaw diirub daanaka lu jigee semaine nii ci kër gi muy Kara sécurité yal na yàlla guddal fanam kalaame na ko sëñ Touba yéen média bi yàlla na yàlla guddal seen fan yal na leen yàlla wéral yal na yàlla def tawféex ci ci site yi ngeen di liggéeye ak télé yi ngeen di liggéeyee ba yàlla yëkkati ko ba ngeen am ci teraanga biir ak jubit ci barke Xaadimu Rasuul jërë ngeen def